alhamdulilahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallama ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim mbokki jullit yu tedd yi nekk ci gox yu fasantikoo yi ci réew mi ak ci bitim réew tànn diine ji tv di ko wéttalikoo maa ngi leen ci seen tur ci seen sant ci seen jëmm nuyoo bi gën a tedd muy asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu. tabaarakallaahu di ki ndokkel suñ mbokki baykat yi di ay jëmm yu tedd yoo xam ne ñoo nekk ci naaj wi seen nekk ca naaj woowa moo waral tey ñeneen ñu dul ñoom mën a nekk ci ker yi ñu tolloon ci fixé prix gerte bi ndeysaanam ñaxtu yi bari ci côté bu nekk may bàyyiloo xel ñi nga xam ne yàlla jox na leen pouvoir yi gën a bàyyi xel baykat yi xam ne ñu jara yërëm lañ ñu jara jàppale lañ ñu jara bàyyi xel lañ ndax ay nit lañ yo xamne ne mu jot wenn yon rek lañuy fayeku kuy fayeku nak at mu jot ben yon la ngay fayeku warna am solo lol boko ko yenen wer yo fayeku sa genn fayeku googu dana mën fat wer weer ta andak sen ngor ak sen ak bax ak sen ak dal yóbboo na paiement bi sax bu tardé doo leen gis ñi takk ay morso yu xonk di ñaxtu te pourtant ñi fayee ko ay weer ak fu ñu mun di liggéeyee ko ku ci paiement am tardé toog la sept jëm la douze jëm la quinze fayeeku rek boo dégloo rajo yi dégg leen boo seetaanee télévision yi gis leen boo liiree journaux yi gis leen ay baykat yi yooya bokkuñu ca nit ñu gore lañ métier moomu tamit ñi tànn mooy métier mi gën a tedd ci mbooleem métier yi métier yi yëpp bàyyi ci gën a tedd bàyyi ci gën a barke moo tax suñ maam aadama bi ko yàlla wàcce ci kaw suuf dafa ko wàccee waale woon ak junney métier waaye ci biir junney métier yooyu mbay la tànnoon moo tax may wax ne bu nit fëggee dënam naan man loom douze douze métier laa adama suñ mam mana na fëgg dëndam ne man lom mil métier la waaye métier yoy yëpp bim mu ci tànnoon moy mbay mbooleem yonentu yalla yi li ci ëpp ay kat lañ ñenn ñi bolé sax mbay ak sàmm mbay ak sàmm ñaari métier yu mënta teqalikoo la mbay ak sàmm moy métier yonentu yi suñ borom bi subhanahu wa bu doon kuy am métier la mën nañoo wax ne sax yàlla baykat la ndax moo ko tuddee boppam moo tax boo jàngee suratul waaqia yàllaa ngi wax ne a antum tas tasraunahu am nahnu zariun yéen yéen a jàpp ne bay wala man maay bay man yàlla maay bay am nahnu zariuna la wax kon yàllaay baykat bu mag bi motax baykat yu ndaw yi yeb liñ man moy ruuj ca ba jamono ja laaje ruuj bu yalla ji tawé liñ man moy ji bu amé ñax ñi bay bu amaté ñax ñi bayat bu gajje ya jébé ñi gajj ko bu démé ba ñor ñi gop ko waye baykat bu mag bi piir di yalla mo mëna saxal mo mëna magal mo mëna moo mën a dijjal moo mën a ñoral moo mën a diisal moo mën a jaral kon kooku mooy baykat bu mag bi te bu ne antum tafraxunahu ah am nahnu zaariun loolu kon lu wér a wér la kon yàlla mooy baykat bu mag bu mag bi may bay dafa nekk métier mu mu noobul métier mu tedd moom rek tamit moo attan nit ñi métier moo waxati rek système la système ci lay dox bu système ba yàqoo rek mu taxaw waaye mbay nag moom ci système mu yàlla lay dox nit ki mën naa nekk commerce xëy dajale alal ju dul jeex benn bis lépp yàqu nit ki mën noon naa liggéey ñi embauché ko ñi xëy dàq ko fay ko ay droit am nit ki mënoon naa nekk tabaarakallaahu di def yëfi yeneen yeneen façon métier yi ñu xam rek yooyu yëpp ma naa koy yàqu ci benn bis waaye nag mbay moom mooy système boo xam ne moom la yàlla doxalee nit ñi ndax nit ñëpp boo seetee ci suuf lañ leen bind suuf soosu ci lañ mën a dund buñ dee suuf soosu lañ leen delloo moo tax tamit liy bàyyee ko ci suuf rek moo leen mën a dundal ndax mbay moo mën a dundal nit ñi moo tax xukamaa yi dañuy wax ne wërsëg su fekkoon ne fukk la juróom-ñeent yëpp yàlla nga ko def ci mbay benn ba nag la séddale ci ñeneen ñu koy séddoo mbay moom kenn mooy métier moo xam ne man nga koo métier woo loo ca jëlee nga dem dundee ko maneen métier moo waxati loo ca mën a jëlee ngay jëli ngay jëndi dund nga liggéey ba pare dem jëndi dund mais nag bu fekkee da ngaa bay da bay ba pare dem dund kay bay mboq bu paree mën na caa dund kii bay dugub mën na caa dund kay bay gerte mën na caa rënd kay bay ñebbe mën na caa dund kay bay ceeb mën na caa dund keneen ko waxati ku dul baykat métier mu mën di métier woo bu jëmee bañ fay ko day jëndi dund loolu njariñ lu rëy la ñaareel bi mbay rek mooy métier moo xam ne mën ngaa jug woo sa njaboot gi yëpp ne leen ñëw leen ñu ànd dem ca tool ya buñ demee kenn ku nekk am na la muy def mbay rek ko nangu mën ngaa jug na ana soxna si jugal nanga defar ndoxam ndoxam ndoxam utal ndoxam naan mi ñu dem tool sa doom yi jug sa sët yi jug sa jarbaat yi jug ñëpp jug buñ demee kenn ku ne am na lu man ki mën a téye machine téye machine ki mën a womat womat ki mën a bujji ñax bujji ñax ka mën a bay bay ku mën a gajji gajji te ñoom ñëpp bu ñibbisee see boo laajee kenn ku ne am na lu def loolu may rek ko man waaye ndax mas ngeen gis benn médecin bu yàlla may ko mu xereñ man médecine ba qualifié ca xëy foo jëm mu ne hôpital ba foo damay faji an sama doom yeeg sa an sama jabar an sama jabari, yi la dem faji kon ngeen ray nit ñi mbay nangu medicine mënul lolu naka non tim mënu xeyna an sama jabar an sama dom yi ñew leen ñun ñep ngi dem jai. boko defé defee magasin ba fay mujjii sey dana bëri koo xam ne lañ koy lu ak lam la doon le prix ba nek du du ben mécanicien bi mënu ko bi mënu bureaucrate bi mënu mbay rek moo man lool ñetteel bi mbay mooy moo mën a gaaw ci créer emploi lii mbay di créer ci ay emploi su fekkoon te yeneen métier ñi ngi koy créer ci ay emploi kenn du toogati xoolal tey li mbay di créer ci ay emploi waxuma la nit ñi waaye fas lay njëkk a employé jël mbaam ya machine ya ñëw jigéen ña ñëw góor ña ñëw mag ña ñëw jigéen ña ñëw maanaam xale ya ñëw ba kër gi daal amul kenn ku xëy ku amul liggéey loolu mbay rek ko man yow waxuma la ni sax waaye malay sax yaa ngi leen créé créé nga ci ñoom emploi ñuy liggéey diggante fas yaag nag yaag mbaam ya kenn ku ci nekk boo xëy am na fooy dem lay dund ci mbay lii dund ci mbay métier muñ dundoon borom dootul dundati liy dund ci mbay métier muñ dundoon borom dootul dundati da ngay xool tey ah, bi nga jëlee sa mbay mii ji ko mu màgg ñor ñaata picc cay lekk te xamuñ la ñaata gunóor ñaata jaalaan ñaata mbët ñaata bar ñaata ci ay sax ñaata ci ay golo ñaata tamit ci ay mbaam xuux ñoo cay lekk ak nyata ñaata ci ay nit ñoo xam timit tamit ñu nañ ci sa mbay moma moo bay kat bi sa mi fo jëm ci tol ba dana bari lu koy woota moom du ko deg ne ko baye ma xel ci mbay mi sama la ngi ci wax nañ ne sax ñakoy wo diko diko diko annoncer mbayam momu diko baye lo xel sen bop mom bu len déggoon dotul ko jiyati ko xenu jiwo ko na jëm ci tol jalan yang lay ho ne la bayalel ma de donte man du dem tool golo yaa ngi koy wax mbaam xuux yaa koy wax gunóor yaa ngi koy wax mbëtt yaa ngi koy wax ak leneen ak leneen ña koy wax ñëpp boo leen déggoon dem jaayi sa jiw bi kon mbaya yaatu gannaaw moom la ñëpp xaj te kenn xaju ci mbay mooy métier mi àttan ñëpp te moom kenn àttanu moo gën a gaaw ci dugal nit ki aljana ndax nit kaa ngi cay jaamu yàlla di ca joxe ay sarax yoo xam ne sax moom yëgu ko yow li li li lekk moo tax yonent bi ne amul benn ku jëmbat meññant maanaam njanaawee ji ca lekk lu dul ba yàlla dana ko def sarax ñeexal ko ëllëg te pourtant loolu bi yaa ngi koy saraxe te fekk yow yëgoo ko kon tey loolu li ci nekk ci xéewal kenn xamut ni mu toll li ci nekk ci xéewal goo xam ne ñu ngi xéewaloo tabaarakallaahu sa sa wërsëg wi di xeewaloo sa njariñ li loola kenn xamut nuñ toll moo tax kon nañ dimbale baykat yi te yërëm leen ñaxtu gi bari na jooy yi métti na nañ leen dimbale kuy koo xam ne at mu jot wenn yoon ngay fayeku li ngay ko war naa am solo te wax dëgg yàlla liñ leen tegal ci piri bi métti na ci ñoom ñu ngi koy ñaxtu waxkat yépp a ngi cay wax dañoo waroon a fexe yokk ci prix bi lu tolloog li marchandise mi yokk te ku ne xam ne actuellement marchandise mu nekk yokk na presque ñetteelu xaajam ba lu doon jar fukki dërëm daanaka dem na ba ci fukki dërëm ak juróom buñ demee ba ne jënu yaa booy maa ngi koy dégg ci rajo yi ñu ne maanaam dana jar 400 francs te loo xam ne dañ leen ko daan may sax da nga daan jënd ba pare sax ñu jël loola tëralal la ca kon loolu li muy prix yëpp a yokk ceeb bi yokku na dawlin bi yokk tamaate ji yokk lépp loo xam ne kon yokk na nañ dimbale leen yokkal leen loo xam ne dana mën a fatt lañuy ñuy jënd ëllëg di ko yokkoo bi ci tegu nag ma ciy tëjee rek mooy baykat yi ñi leen lor dëgg mooy ñiy wax ki seen tur te fekk na sax buñ buñ buñ ci amee lu ñuy jariñoo ñoom duñ duñ ko topp duñ ko duñ ko yëg topp télé rek ñoo fi nekkal nangam ñoo fi nekkal nangam bay Mangga nga dem huti manen metia waye fu nek lu xew rek da nga fexé bay dem jël radio yi neexal len wax ci turu kat yi te lepp lo xamé ni jëlé nga ko ci turu kat yi timit ci sa biir bi rek la yem kon kat yi li len gëna sonal deug moy ñi ni dundé ni ni dundé dem ba am ci ay ndomba tank yu kawe dem ba len bañ bañ leen cay dem manam di amé ci sen tur yi lu ne te bay kat ya yeguñ ca dara ciow yi ngeen di deg yaam njariñ ni koy def ñep dañoo bëgg luñ dundé rek dañu bëgg dundu timit ci kaw baykat yi rek motax kon limay limay diglé bay digle yi nañ gëna organiser wu ndax ñoom ño ëpp presque ci population bi képp kuñ andak nga jël réew mi ci yi Senghor bu bis niki tay ku baykat yi andak rek nga jël réew mi kon nak nañ organiser organisation bo xamné bu dëgër la ut ci ñoom ki seen biir ku leen doy ñi jiital ko mu leen di waxal bu fekkee at mu jot ñi seet résultat wu kooka bu amul bu fekkee ne joxul résultat bu baax ñu renouveler ñu seet keneen bu fekkee résultat bu baax na ñu renouveler ko waaye ñiy wax ki seen i tur di ca jëlee lu dul jeex di ca dund kenn xamut niñ toll su ko defee dañuy xam ne xeewu ñu dañoo am complexe bu oto ñëwee ci dëkk rek commencé woote njëkk teg ay taabul yore ay téléphone nga foo ne kii fekk dara la fekk la muy def yëpp ci biiram dong la kon baykat yi son nañ ku am xol war nga leen a yërëm baykat yi tabaarakallaahu seen coono bi fës na te metti na nañ leen bàyyi xel bu baax a baax a baax a baax nañ leen dimbale bu baax a baax a baax a baax nañ leen timit dugal leen ci mbay mu bees mi yow su fekkee da nga ne damay dund noor ak newet waaye man newet rek laay bay do do do gaaw a teqali su fekkoon ne weer rek ngay dund kon mën ngaa bay nawet waaye comme dangay ngay dund noor da ngaa war a créer noor loolu tamit état bi foog mu jàppale leen xotti yooni ndox yi boo demee Europe ni mel ba ci suñ mbokki marocain yi boo demee fu nit dëkk lu mu ruqi ruqi rek am na yoon am na courant am na ndox bu bëggee bay mën a bay Omar ibnu Xataab dafa daan wax ne ku bëgg a développer am réew fexe ba ndox bëri fa fu ndox am koom-koom am fa wa haythu yujadul maalu yu waxaytu yujadul maa'u yujadul maalu waxaytu tuujadul waxaytu yujadul maalu tuujadul fitnatu loolu la xam ne mu xataab daan wax mu ne fu ndox am koom-koom am fa fu koom-koom am fitna du fa jugati waxaytu yujadul maa'u yujadul maalu waxaytu yujadul maalu tuujadul fitnatu kon fokk ñu yërëm baykat yi xettali leen fexe xëtt ay yoon mu ami ndox fuñ mën a nekk ami forage fu ñu mën a nekk am mbënd di mën a bay noor di mën a bay nawet ñun ñii gi suñu réew mii ak réew yi mel ni Sénégal ki suuf si tàlli ci am ay ndaw wallahi bu ñu ñàkkee kom ma bu ñu demee ci suñ kanam borom lu koy war a wax waruñoo ñàkk ndax liy joxe développement yépp yàlla teg na ko ci suñ loxo premier développement mooy ndaw kon nag bu ñu yàlla dimbalee tey suñu réew yi rawatina suñu réew mi de Sénégal ndaw yee ëpp mag ñi loolu développement bu mag la tey Europe gi tey boo demee ba Amérique mag ñaa ëpp ndaw ña moo tax am nañ liggéey mais amuñu leen liggéeyal ñun nag am nañ ñu liggéeyal mais amuñu liggéey loolu mooy problème bi ñaareel bi mun ndaw mun maanaam ñàkk munuñ koo taxaw di ko di ko di ko di ko di ko di ko tawatati ci yàlla xoolal énergie bi ñu yàlla may tàngoor bi jant bi loolu tey koom-koom la boo xam ne bu ñu ko exploité woon li ci mën a jëriñu kenn xamul ni mu ñetteel bi xoolal tamit ni ñu yàlla mayee suuf te tàllal suuf si tey màkk gi rek boo fa demoon tey boo jëndoon ab terrain boo war a jënd tey man nga koo jëndee lu jege cent million waaye boo ko jëndee woon cent millions bala nga koo mën a tracer pour man man faa dëkk man nga cee def loo pour deux cent millions ay bilay ñëw di gas boole ko dëgër ga seen peel seen seen seen jumtukaay di yàqu foofa moom maanaam euh, euh, jënd fa terrain moo gën a yomb tabax fa ab terrain yow na nga am suus tàlli soo xam ne tey da ngay ñëw rek tabax moo tax ñaareel bu demee màkk damay wax toujours toujours ma wax ko Oustaz Hassan ne ko yàlla daal ko xereña la xam naa ne bu ñu yàlla nattoon ñun africain ñi ñëw dëkk fii ci biti la ñuy fanaan ba dee duñu xam duñu xam ne buñ dugg waaye xam naa ne tamit waa màkk yi ni ñu xereñee bu ko leen indi woon tey suñ Afrique gële bootul dañ ko def xal jaanaay biti da ngay gis foofu ay tabax yoo xam montagne boo xam ne tey ëpp na presque euh, jege na jege na kilomètre yow nga ñëw ñu jaay ko nga war koo raase ba mu suufe nga door koo mën a tabax yow nag yàlla may la suuf soo xam ne dafa tàlli tàlli nangu lépp nangu gàncax yëpp nga am ay ndaw boole ko mën a am ndox wallahi boo taxawee sa kanam borom naan ko yow yàlla jox ma wërsëg yàlla ne la joxoon naa la ko yaay yaafuus rek moo tax ñun suñu ñàkk buñ ko ñaanee yàlla pour mu faju day jafe lu ko waral yàlla lum la xas may dootul la ko mayati te lum la xas may bëggul nga ko koy ñaan may na la koom-koom li ci des mooy nga exploité ko rek kese waaye tey buñ demee tey ndeysaan Europe gëlee am liggéey te amuñu leen liggéeyal suñuy ndaw tey li fi déparé jëm Europe ñii déparé fi dem Amérique ñooñu kañ lañ leen di mën a jotaat loolu pertement bu rëy la ci réew mi waxuma la nag ñi ci dee ci géej gi yooyee ndaw tey kañ la ne nañ jotaat te li gën a yéeme mooy tukki mu bees mi xew mosta xew liñ daan xam mooy kenn nay jug tukki waaye jug na yaa ngay tukki yóbbuwaale sa yaay yóbbuwaale sa papa yóbbuwaale yóbbuwaale say jabar loolu kay mooy damay màngaani man damay tukkeetuma mais damay tuxu kooka bu xasee dem ba ne surax Amérique gee cey bala nga koo gisati loolu loolu pertement la nañ fexe tëral plan boo xam ne danañ mën a téye suñuy ndaw yi fii ci réew mi te bàyyi coow li bàyyi politique bi bàyyi xasante bi bàyyi saagawante bi loolu matu ko nekkul lu mën a yóbbu kenn fenn nit manta wax wax wax ba développé réew mais nit mën naa jëf a jëf ba développé réew kon nañ jëf a ba jéem a développé réew mi bañ a wàññi wax ji damay wax ne liñ xëppale ci wax buñ ko wàññi woon yokk ko ci liñ manqué le ci jëf réew mi avancé mais wax ja dafa ëpp ni koy gën di yokk fuñ jëm am na fi ñoo xam ne tey dara du seen métier lu dul wax rek topp télé yi rek luñ bëgg a lancé mu jëm ci population bi ñoo koy njëkk a wax te fay day nekk loo xam ne kenn ñu mut koo wax ñu jël loola sànni ko sonde ko mu mel ni bal seet mu koy population bi gisee boo léegi nga dem ci télé bale boo léegi nga dem ci télé toog dara du seen métier lu wax muy dox réew bu nee ba nga xam ne wax muy dox moo fa ëpp doole jëf muy dox su boobaa mooma réew fu ñu jëm dana xaw a doy waar waaye fokk ñu jëlee fi système wax muy dox fokk ñi fexé ba jëlé fi système tok muy dox fexé jëmbat système jëf muy dox waye bo nek ci réew mo xamné dañuy fay wax kat ya di neexal jëf kat ya naka ñi liggéey dañ lay neexal rek waye fu muy wax kat yi auto yi tabah? a dawal kër yi mën tabax yow mi dé yow mi nek ci liggéey bay bëgg dé bo boo boo nekk ab kan ba nga nek ab médecin genn wal ga mënu ko am kon fofu système bo fokk ñi bayyi ci xel amuñ lu dul réew mi ñoo toxu mënuñoo dem fenn te ku fi dee ci réew mi lañ lay suul ci réew mii lañ lay ñaanalee ci réew mii lañ lay seedalee nit nag fu amul lu dul loo xam ne mënul koo ñàkk dafa ko war a fexe toppatoo fexe ba defar hôpitaux yi ba tey ñëpp ko la ko doree ca kaw ba ci suuf ba ku feebar da wax ne mën naa toog fii ñi faj fexe ba defar réew mi ba nangoo fee dëkk pouvoir boo mën a am boo ko ñàkkee tamit ne damay dëkk ak yéen ci réew mi ndax awma lu ko fexe ba defar réew mi ci côté bu nekk fexe ba defar réew mi ci wàllu njàng mi ak éducation bi ba ndomba tànk boo mën a am xoolu sa doom yi jàngee fii loolu nag fekk yegguñu fa coow lay bari rek mais fi ñu jëm duñ fa gaaw a yegg kon baykat yi ñooy renu réew mi baykat yi ñooy rooxu réew mi baykat yi bu fekkoon réew mi oto la ñoom ñooy ñoom ñooy ñoom ñooy moteur ba nañ leen jàppale baykat yi timit nañ fonku sen bop nit bu la ken fonku da ngay fonku sa bop nit bu la ken bëggul da ngay fexé bëgg sa bop wayé ku gëna ki gëna tardé ci nit ñi moy nit ku réré bopam moy nit ko xamé timit tamit bop boppam da ngeen ne bëgg leen seen bopp bu leen ken bëggul ngeen bëgg sen bop bu leen ken xamul nga xam nga xam sa bop waaye bo réré sa bop bëggoo sa bop lu leen di teg timit yow timit xeyoo nga ko ndax ya tek sa bop li li tegu ci sa kaw kon nag ñu ngi jëm ci ay élection xam leen seen bopp bu baax bàyyi xel ci seen bopp bu baax yéen la yàlla may doole joo xam ne ku ngeen ànd ak mu jël réew bi kon nag ànd leen koo xam ne na leen wóor ne su ngeen ànd moom situation yi ngeen nekk te bëgg ko dana mën a soppeeku ki ni ngeen ko bëggee loolu rek mooy li am solo kon nag yàlla yàlla jàppale ñëpp te jàppale ñu rawatina jàppale baykat yi émission bi dañ koo def tey jagleel ko suñu mbokki baykat yi yàlla na yàlla jàppale leen yalna yalla yàlla xettali leen yal na yàlla taxawu leen ku dem ba fekk tay fuñuy dundu ak ni dundé bo amé amee xolab yërmande da nga leen yërëm politiciens na ku dengi ngi taal ab otoom topp leen di dugg sen neegi ñax yi di ut ay prenance léeg-léeg nga fon dañ leen bëgg ñew fekk leen seen bool yi ngeen di ñi lekk ndor ak yeen dañ leena bëggal bëgguñu leen di dugg ki seen neegi ñax yi tok ci seen lal yi ngeen naan waaji ni mu loolu la daan seen ke télé bi xolal tay tok na sama lal bi loolu day dara fonku leen seen bopp commencé jël di photo ak yeen man suma gisé nit koy taxaw di sakku ki ni nan dama bëgg photo ak yow sax dama lay may ni dafa fonk boppam boole ko di jox sen numéro téléphone yoy téléphone yoy ñi leen jox bu ngeen xiboo gaaw gaaw ho leen de ba ñoo dem ci élection ya waaye bis buñ xasee dem ci élection yi mo xam ña leen ko jox ñom lañ gagné mo xam dañ leen a gañe ku mëna doon ak ku leen ko jox rek dootu leen ko jox kon nak bayi leen xel ci seen bop fonk seen bop bu baaxa baaxa baaxa baaxa baax baax bëgg seen bopp bu baaxa baaxa baax di liggéeyal seen bopp bu baaxa baax ta bàyyi xel timi ci seen bopp bu baaxa baaxa baax yow yàlla yàlla yaa mën a xettali yàlla nga xettali baykat yi dema dem tey ba suñ baykat yi yegg ci baykatu européen yi nga xam ne tey taxaw ne baykat laa ñi ñee la boo demee Europe wala nga dem Amérique ki jàpp ne mooy ki am alal ka fa ëpp alal mooy ki am tol, ndax jàpp nañu ko am tol am suuf ñàkkatoo dara yow tam nga taxaw fii nag di baykat boo xam ne am nga cent hectares te ku la gis yërëm wala métti na nawet bi jot mi ngi nekk fi def ay annonce dem leen bay dem leen bay déedéet jaru ko nañ fexe dimbale baykat yi bañ ñee leen buñ leen ñeexee rek nit ñee dem di bay te kenn du leen ko wax waaye tey bay bu demee ba xegg ci doom bu ko bàyyam ne ko nañ dem tool mu ne ko dewuma ndax ñeexuma la dama laa yërëm nga xoo maanaam nijaay ji xoo jarbaat bi mu ne ko duma newet ci dama la yërëm ndax ñeewuma la ci li nga ne dama gud ba yow ci li nga ne ta mënu xamoo dara buñ démé ba tamit rakk ñeexatul mag mu ne ko dama bëggoon sama rak kat nga ñew japp ci tooli yi mu ne ko duma ñew ndax yow mi nekk ci ma juddu fekk la ci ngay sama mak ñeewuma la waye buñ fexé won tay ba jarbaat yëpp ñe seen nijaaye ya ci tool ya doom yëpp ñe seen bàyyi rak yëpp ñe seen mag yi kon kenn du fi nekkati naan dem leen bayi mais nit ñaay wax na dañuy bay waaye fii da fi daje xale boo xam ne ndeysaanam baykat la te boo jëloon tey mi ngi def ambila marchandise ma yëpp boo ko calculé woon matul dix mille francs te pourtant ci lay añ ci lay reer ci lay fay luyaas da nga koy yërëm dangay xam ne kii lii muy def am dafa amut benn pexe rek te ñi ngay gis tamit ñu dem Europe ñu ci ëpp boo demee loo leen fekk dañuy bay ni ci ëpp gi toll lañ nekk de ñun ñafay dem di leen fekk ci dara benn waaye sax mos na ma ci yewoo day ne ma ah man di sëñ adi quatre heures laay mën a yeewu jëm cinq heures mooy tax balaa bëre set ma door a yegg ca tool ya su ma takkee sama dàll yii bala ma koo tekki day fekk maanaam ñu julli may laaj sama julli nu koy def ma ne ko bala maa wax ak yow ki sa julli yi daal coono bii nga daj ci toolu baay tubaab bii boo ko ci sa toolu baay bi da nga am lu ko ëpp loolu nag laa lay njëkk a tontu loolu laa tontu julli ya kon na yal na yàlla defal ñu tawfiq yal na yàlla defal ñu taysiir yal na ñu yàlla xiir ci boppam def ñu dëgg-dëgg jullit tam may ñu mujj gu rafet dëpp la ñoo ngërmandeem dëpp la ñoo yërmandeem wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu.